asalaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. mel ni jàngatuñ lu ko waral confinement bi cours yi nañ ban conseil daal nga mën a jox élèves yi exactement. waaw conseil bi may jox euh, d'abord maa ngi lay fay yow tamit ci nuyoo bi waaw di mettitlu rek virus bi ak confinement bi parce que li yëpp virus bi moo ko waral lu metti la ñuy ñaan yàlla mu gaaw jóge fi yàlla na ko yàlla def incha allah léegi confinement bi metti si ñi nga xamante ne ni ñu ngi xëy di wuti di indi si kër yi métti na ci élèves yi nga xamante ne ñu ngi jóg di dem di wuti xam-xam di ñëw métti na tamit ci ñi nga xamante ne nii comme ñun ñii dañoo am xam-xam di ko séddale di ko joxe ñu toog ci suñu kër yi te dem ñu joxe ji xam-xam métti na torop léegi nag moom lu fi des mooy muñ léegi muñ bi nag moom dañuy toog ci biir kër yi pour virus bi bañ a kii bañ a law mm-hmm. beneen bi mooy xale yi nga xamante ne ni mënatuñoo génn wuti xam ñu ngi leen di soññu di leen conseiller ñu toog ci biir kër yi ubbi seen kay ak seen livre yi ñu jàng waaw parce que virus bi mun na xëy xëy wàññeeku président yabalaat ñu ñu dem liggéeye ji donc en attendant il faut bien apprendre à la maison waaw. mais est-ce que yéen a ngi woo seen seen élèves yi tamit di leen di soññu ne cours yi ñoom tamit ñuy continuer di jàng ci kër yeeg yooyu noonu wala ba xam yéen a ngi leen woo di leen jox cours à travers internet beeg yooyu. waaw ñi nga xamante ne nii ñu ngi leen di gis xam nga élèves du ñëpp ngay gis ñi nga xamante ne ñu ngi leen di gis ñu ngi leen di conseiller ñuy jàng bu baax seen kër yi ñi nga xamante ne tamit am nañ possibilité ñëw suñu biir kër yi fekk ñu fi ñu ngi leen di jàngal man am naa si ay élèves yoo xamante ne nii dama leen daan jël ay cours particulier soriwuñ dara sama kër dañuy ñëw ba ci kër gi continuer seen cours particulier lu ci melni français dañ koy def ak man ak anglais ta xamna ni tamit ñu ngi def ñu ngi def lolu tamit ci seen yenen prof particulier yi mais ñi nga xamantene ni nii tamit dañoo sori ñu amna yenen cours yo xamantene ni professeur yi ñu ngi koy dismasser mhm. par whatsapp di len ko envoyer seen parents yi ñu ñu di ñu di jot waaw wala wala par audio wala par vidéo ñu diko jot waaw Ah, kon daal su ma leen déggee mooy yow daal yaa ngi conseil élèves yi ñu delluwaat jàngi te xam ne année balance moom ñaanuñ ko yàlla te tamit du am nañ dem jàngiwaat seen cours yi taxaar rek lépp lu ñëw rek ñu xam ne loolu la. yàlla dogal dogal waaw. incha allah daal am nañ jot bu rafet ni année blanche moom mun na mun na bañ a am moo tax à chaque fois ñu ngi préparé suñu bopp di préparé élèves yi buñ nee jóg leen rek incha allah dinañ jóg. ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna si sox kii mooy soxna Zara ci koñ bi nekk professeur anglais merci ñu ngi lay jaajëfal.